asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 29 novembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb nag tey fële nuy xëy dooree ko yëglikaay bi nag tey ki mu xëy dalal mooy Pape Abdou mi nga xam ne mooy président des promoteurs kaay bi daal moom la xëy séqal tey waxtaan Pape Abdou nag mu ngay wax ci diggante Papa Sow ak Siteu ba nga xam ne moo ko tëgg ak yeneen combat yoo xam ne sax warees na koo mën a xaaraat moom daal ñëw na bokk sa combat ba ak organisation ba nga xam ne fas na ko ca yéenee def Pape Abdou nag nee na buñ ca yeggee day dinañ xam ne ba dong moo koy bay ndax nag nee na bu keroogee moom lamb ji dina exploser maanaam toj rajax la ko ci diggante tarkindaa bi ak piment bu faas bi Pape Abdou Fall mooy wax ñëw na tamit ci jafe-jafe yi nga xam ne lamb ji mu ngi koy traversé fi mu nekk nii Pape Abdou daal la mu xam ne daal nee na fi mu nekk nii daal mbir yi moom fi mu toll saful suukar saful xorom waxi ki nga xam ne moo di Pape Abdou Fall ba tey tamit ñëw na de jàpp na ne daal fi mu nekk nii moom mbir yi bés ci jógul moom mbir yi daal fa muy mujj ji moom day mel ni ki rek waanam loo xam ne daal kenn dootu ko mën a contrôler wala lu neex waay def jàpp na ne daal lam ji fi mu nekk nii moom VIP yi ak ñu mel ni ki ñoom faaw rek mbir yi moom es xoolaat ko ngir nag man koo teg ci aw yoon ngir lam ji mën di dox nam daan doxe waaye daal jàpp na ne nii am nii moom buñ ci jógulee moom lamb ji fa mu nar a mujje du neex Pape Abdou Fall moom mooy wax mu mel ni ki nga xam ne tamit moo jiite amateur yi di du jànjeekoo feelu na ko moom nag la mu xamle daal ne na li leer ba leer day na ko VIP yi jàpp te déglu lii may wax du jànjee na leen déglu leen wax ji cent cinquante millions moom amatu fi ku ko doon xaar bu yeboo nga lalli te xaddi te xam ne ku leen koy fay dafay sax nekkatul loolu mooy wax ki nga xam ne moom moo jiite ñi nga xam ne nii day moo di amateuru làmb yi di dut jaan jekk ko ba tey yëglekaay bi tamit ñëw na ci ay combat yoo xam ne jàpp na ne day bu taxawee dina war a mën a suqali lamb ñu ne ko loolu kan kan la yëglekaay bi dina li leer ba leer jàppal forsa bu faas ak rëg-rëg ba nga xam ne moo dëkk ca caaro yi mu ne combat boobu day bis bu taxawee da nga gis lu neex a neex a neex ñu ne ko ak kan mu ne giri ba tey bu faas ak Elton ma nga xam ne moo nekk ci géejawaay nee na tamit combat boobu bu taxawee da gis làmb ju neex neex moo tax daal mu jàpp ne combat yooyu moom bis boo déggee taxaw na dina bokk ci li nga xam ne de dana mën a suqali li nga xam ne moom moo di làmb ñi seenu combat taxaw moom ba ñu fas ko yéene jongante muy diggante Mama Lamine ak Jokkel am na ñoo xam ne nag ñu ngi cay wax Mame Less di ab coach nekk ca parcelle mbooloo moom di leen tàggat la moo xam ne daal nee na moom am na ci jooju làmb mu jàpp ne nag favori ba du kenn ku kii nga xam ne moo di maam Lamine moom daal jox na ko 60 pour cent maanaam téeméer boo jël daal juróom benn fukk ya maam lees jox na ko kii nga xam ne moo di maam Lamine bu Lamsaar nee daal moom mooy favori wu li nga xam ne moo di combat dimanche bi loolu waxi maam lees la ci yëglikaay bii nga xam ne nii moom moo di sunu lamb leneen loo xam ne wala keneen koo xam ne tamit dañ koy fekk ci yëglikaay bi di sunu lamb muy pakala bu mbuur pakala nag mu ngay wax ci dilsim gii mu dilsi ci li simple bi te di ci di ci wane boppam bu baax a baax sellal dund goo xam ne da koo sellal teg ko ci aw yoon maanaam di entraîner na mu war a entraîner du taxawaalu te defut itam loo xam ne nii daal luy tax sportif du yegg fa mu war a yegg la moom daal jàpp na ne dund gu sell daal moo tax tey ni mu ñëwaate mu ñëwaate ko di wane boppam bu baax a baax ci làmb ji nga xam ne nii day moo di làmb ji àndul ak dóor yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey dalal ku mel ni pakala muy wax leneen loo xam ne tamit dañ koy fekk fa nga xam ne moo di ca l'observateur muy combat boo xam ne day jax kii nga xam ne nii de moo di big pato police bi ngeen xam ak Alaaji Mbay ba nekk ca Ama Baldé Alaaji Mbay nag mu ngay xëy di wax ca fii nga xam ne moo di l'observateur Alaaji daal nee na li leer ba leer bés boo déggee ne big pato daan na ma moom nee na bu keroogee damay bàyyi làmb nee na police daan ma Alaaji Mbay nee na loolu bes ko xalaat ndax su amee moom bàyyi fi làmb ji laay def moom daal suuraalewul sax ci xelam ne kii nga xam ne moo di big pato war na ko a daan bu ñu demee ca leewtoo point net kan fay fekk moo di Abdoulaat Ndiaye ba nekkoon manager léegi nag nekk promoteur yore li puissance am laat ñu ne ko ndax yow dangaa fas yéene bàyyi mbër yi nga yoroon yor di leen menacer ñuy am ay combat kon su ma leen bàyyee dana am lu manqué ci ñoom moo tax ne na loolu du ko def tey suba waxi noppi day continuer daal yore la nga xam ne nii moo di ay mbërëm waaye itam nekku promoteur di tëgg ay làmb ba tey fa nga xam ne tamit moom moo di ca Leewtoo point net mu mel nekki tamit dimanche gi day Joal nar naa yëngutu ka ko nar a yëngal moo di Yaxya Jóob Yékini Adrien Senghor tamit day yëngu ba yegg ci ba tey ci dimanche ji loolu ñu ngi ko jàng fa nga xam ne tamit moom moo di ca Leewtoo point mu mel ni ki daal kon li leer ba leer daal jàppal weekend bii moom nar naa metti torop te nar naa sarse itam ci wàllum làmb kon daal yii nañ choisir rek waaye loo ci mën a dégg suba itam ab jàkkaarloo am na de ka koy yëg ka koy def nag du kenn ku kii nga xam ne nii day moom moo di Baba Jaw borom Thiam production jàkkaarloo ba nag mu ngi war a dox ci diggante Pape Ndoye bu Fass ak Jackson muy di grand combat boo xam ne Baba Jaw moo ko tëgg borom Thiam production bu nga xam ne nag mooy la Leewtoo TV kañ fay fekk moo di Gris 2 Gris 2 nag moom mu ngay défendre li nga xam ne ni day moo di daara ya ak ndongo daara ya nee na daal li leer ba leer moom sénégalais yi des fois da ci am ñoo xam ne dañuy wax ci loo xam ne xëy na sax dañ ko dul xaw a maîtriser waaye daara moom yàgges na cee jëlum xale di ko jubbanti di ko teg ci aw yoon ngir ëllëg su màggee mu mën a da jariñ boppam waaye jariñ tamit aw askanam yegg na ba ci ne sax xale boobu ñuy wax wala di ko kaasal day bis bu màggee ba doon dara sëriñ ba ko doon jàngal yow mi ca saw yoon nekkul bis boo sëriñ ba du la may jàmm ci sa kaw lay dal kon moom daa jàpp ne daal nañu bàyyi daara yi ñu doxal nañu doxale jàngal xale yi alxuraan ñu doon ëllëg dara moo gën coow li ak wax ji mu mel ni ki yàgg maar vidéo Gris boobu day li ci wax bëri na ñi mu yëngal itam bëri na ndax ñi ma woo ne ma ay dongo lañu woon dëggal waxi Gris 2 ji bëri nañu lool mu mel ne ki daal yàgg maar loolu waaye man de wax dëgg moom su jibee nopp bu ko dégg di nga xam ne dëgg la yaa xam nga nangu wala nga bañ waaye olof Njaay daan wax na nag nangu moom day jël ciru bañ. waa Leewtoo TV di sant Babacar ngeen àndaloon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène maa ngi lay nuyu di la ziar lay fay Ndeye Coumba di la fay di la nuyu di la ziar di nuyu internetu Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a nekk rek si àddina bi di leen wax na rek ñoom saa yu ñu kontaanee rek ñun bëgg nañu. ba yaa ngi fi. waaw maa ngi sant suñu borom bu baax a baax a baax di ñaanal tamit ñi may dox di ñaanal parce que ñëpp a ngi may ñaanal kon maa ngi leen di ñaanal ñoom tamit ñu ànd goog ñu may ñaanal yàlla na ko yàlla nangu te boole ñu ko ñun ñëpp ku mel ni ngañ Sow kenn tukki ca États-Unis du ko mën a fàtte ndax daf may ñaanal tout le temps ak ñoom tuuti yaay Sarr. loolu am na solo Babacar ñëw nag si sunu laam sunu laam dañoo xëy na dalal ki nga xam ni mooy président des am président des des promoteurs mi Pa Abdou Fall Pa Fall daal lu mu gis daal mooy nee na combat Siteu Papa Sow combat bu explosif lay doon combat bu neex a neex lay doon te nee am na yaakaar fii ak fin de saison dina tëggaat beneen combat bu mag ñëw na aussi ne euh, làmb ji aussi mi ngi mi ngi suux donc il faut que nit ñi. Euh, mbër yi euh, am raisonnable par rapport ak cachet yi pour làmb ji mën a mën a dem si kanam. waaw président des promoteurs ñu koy nuyu Pape Abdou moom moo xëy wax loolu que ne làmb ji ah maanaam diggante Siteu ak Papa dina explosif loolu moom yaakaar naa ne su ko waxee su ko waxul sax am nañ yaakaar dina explosif ndax li tax mooy euh, ku ne xam na ne Papa Sow dugg bi mu duggoon Lamsaar nees da ko daanoon. yaa ngi dégg yàlla di dox di dox ba xale màgg fa bu ñuy wax Siteu ba làmb boole leen tey Siteu moom itam jóge ci defet papa jóge ci defet ñoom ñaar ñu def année balance ñu war a xëccoo ku ne war a ñëw taxawaat jëlaat sa place ci làmb ji defe naa loolu dong boo ko tegee rek c'est explosif sans compter nag yeneen yi ca laxasoo yi ca laxasu kon làmb la joo xam ne defe naa daal li ñuy ñaan yàlla mooy yàlla nañ ci yegg ak jàmm fekke côté tal ko que le meilleur gagne waaye xam naa daal làmb ju nar a metti la quant à wax tamit si côté mbër yéeg comparaison bi loolu ma defe naa ne su amulee mbir du dem ndax mbir mu ne rek na mu dikkee nga koy gérer yaakaar naa tey suñ demee ci làmb ba nga xam ne nii yenn kase yi wala yenn mbër yi ñu toog ba yegg ci yenn mois te mënatuñoo am combat wala ñuy def ay année blanche ça veut dire que kon war nañu xoolaat affaire yi yaakaar naa nag euh, li may wax rek euh, affaire bi du ak nay du dara mais xam nga la problème de koppar la am na yoo xam ne nag su exposé yéen ñi ko séq da ngeen di toog am comparaison nangoo ànd dimbalante pour que mbër yi am lu leen promoteur yi jox ñu mën a bëre parce que tamit lu ci waay mën a xam mooy daal yaakaar naa ne yenn kase yi moom pour mu am day am lu ko waral la ko waral nag bu fekkente ne taxawu fi nday kumba ah waaw li tax mu tax moo tax muy tax de te bu taxul itam du tax <laughs> waaw Babacar Paw Dafa tamit ñëw na tamit si association bu bees bi nga xam ni Bamba Faye moo ko dirigé muy association des promoteurs de lutte authentique moom nee na daal lu mu leen jàppee nekkul concurrent nee na daal lépp daal pour làmb ji mun jëm si kanam la te nee na Pape euh, Demba euh, Bamba Faye bi nga xam ni mooy président bi frère am la jarbaatam la te foofu rek la ko mën a teg Babacar. waaw loolu itam lu rafet la parce que mbir moom li am solo daal mooy gis nga ay nit ñu bokkee dara olof dana ñu bokku teel ñooy laxasoo ay goj kon li am solo mooy ñoom promoteur yooyu nga xam ne man lu may wax bu dul ñoom làmb du am parce que ñooy bayeru làmb ji ñooy fay seen xaalis nañu bokk nday bokk bàyyi wute gis bokk lu ngeen bëgg wala bëgg lu baax xëy na gis-gis yi mooy bañ a wute Pa Abdou Fall am na ñu mu jiite Bamba am na ñu mu jiite mais l'essentiel que nañ ko yóbbu ci bon bi rek rafetal ko ku ci nekk parce que ñoom ñëpp ñoo bokk lu yëg parce que ñooy jënd ay licence di génne xaalis di fay concurrence bi moom donte dina am mais nañ ko teg ci lu loyal yaa ngi dégg dafay rafet bu keroogee parce que li ma la rek ñoom ñëpp xamante nañu lu seq nañ ko kon yaakaar naa la ñu seq démb ci lu rafet nañ ko indi teg ko tey rek bu ñu ko tegee ci tey rek lépp lu nar a ñaaw sax dinañ ko faxas jëlee ko fële continuer nekk seen rafet xam ne àddina amul solo te lépp lépp lu ma doon day ko mu faal bis day ñëw rek ñu koy nettali mu jeex waaw waaw. kon boo jëfi rafet rek moo am solo Babacar ñëw nañu nag dalal ki nga xam ne mooy beneen président buy duj daan jekko mi président des amateurs moom daal nee na mbëri daal cent cinquante million amatu fi. waaw moom nee na saa si fii jeex na amatu fi la wax ah waaw abaana kon actuellement moom waa xam naa daal fi mu nekk nii moom jafe na pour pour mbër mënati ko encaisser cent cinquante millions waaw moom du ma ne jeex na cent pour cent de waaye itam daal xam naa ne ah yombatul de fi mu nekk nii loolu nag ki ko wax mooy président des promoteurs du jaan ñu koy nuyu di ko président des amateurs du moins ah kon defe naa moom itam yaakaar naa loolu muy wax am na lu ci xam kon nag li mu loolu li muy wundu ka ni rek mooy kon lu ma waxoon sànq la rek mbër yi ak promoteurs yi nañu jéem a dawal comparaison li fi ne ñu duggee ko marché ah lañ daan wax daf ci am solo tuut te teew njëg ak Bambey sama dëkk ba loolu da ci am solo trop ndey Kumba Fall waaw <laughs> Babacar kii di Mamles microchip euh, parcelle écurie parcelle mbooloo moom dafa ñëw si combat bi nga xam ne mooy am dimanche fee si Iba Mar Diop mooy première journée Fallou Ndiaye ko euh, Jokkel ak euh, Mama Lamine moom daal lu mu jox favori mooy nee na Mama Lamine mooy favori à 60 pour cent Babacar. waaw Mamles entraîneur la ñu koy nuyu di ko ziar nekk parcelle mbooloo moom it joxe na xalaatam jàpp na ne kii mooy favori en 60 pour cent Mama Lamine waaw loolu tamit waxu technicien la am na ci ay. condition wala ay paramètres yu mu ko teg ba tax mu wax loolu waaye loo ci mën a dégg cent pour cent wala ñu ne la yaay favori cent pour cent wala soixante pour cent tekkiwul ne yaay gagné combat parce que réalité géew dafa am bu ñu yéggee ba ci géew bi arbitre bi soufflé nag boo xoolee Mama Lamine dañ mu ngi teglante a mag ba tey rek jokkeel nekkul mbër mu ndaw ndaw il faut que Mama Lamine bàyyi ci loolu xel de ki muy bëreel du mbër mu ndaw te ku tenir Tidiane Faye en échec ba gagné ko par avertissement yaa ngi dégg yaakaar naa doo cuune ci làmba kon daal loo ci mën a dégg moom dimanche si kàttanu suñu borom ah yàlla nañ ko fekkete tal ko ku ñëw Iba xalaat naa di gis làmb ju neex a neex a neex a solo Babacar suñu jógee nag suñu laam nañu dem fi nga xam ne mooy observateur observateur dañoo xëy dal ki nga xam ne mooy Alaaji Mbay bu école di Falaye Bal Alaaji Mbay daal lu mu wax moom neena tey jii su ko Big Pato daanee day bàyyi laam ndax combat ak Big Pato taxaw na Babacar waaw mu ne bu ko daanee day bàyyi làmb ah waaw loolu nag àllaa ji doolu ëpp na de man daal dama ko naan na na na na defaru rek ñëw bëree si parce que buñ ma daanee ma bàyyi làmb te tolloo ko ci fooy bàyyi làmb man boobu baa baat du ci ànd li ma ko xamal daal mooy mbër la bi pato mbër la lekk nañu avance ku ne da nga bëgg daan sa morom te ku ne valable nga pour nga daan sa morom mais l'essentiel que nag ku ne am nga droit liggéey défendre sa bopp ba bañ a daanu waaye daanu moom du yaa ngi dégg daan tamit du sa njàmbaara la tax nga daan dafay fekk ne rek da ngay liggéey ñaan sa borom dogal ba ñëw mu am waaye daal xam naa ne ku fekkee seen combat itam yàlla nañu fekkee lépp di nga gis combat bu neex a neex ndax àllaaji Mbay moom bu ne xam na ko ci saf xorom te itam nag ku mën a bëri la Big Pato nag dafa jóge ci ay defet ñaari defet la teglante kon yaakaar naa fi mu nekk nii moom il est l'heure que tamit mu radoore waat bi ñëw teguwaat ci yoon wi c'est ça pour honorer ki nga xam ne mooy dem si yàlla Pape bi nga xam nekkoon na manager. waaw loolu tamit dina ci am solo parce que yooyu tamit yëpp da ciy bokkaal ndax Pape Dia moo ko doon manager vraiment nekk koo xam ne ni tamit yàlla na ko yàlla remat xare ko aljana comme ni ko doon waxee rek waaye daal xam naa ne diggante àllaaji ak patoo moom dana neex te dana yëngu incha allah. Babacar suñu jógee nag fi nga xam ne mooy observateur nañu jeexalee si Leewtoo point net Leewtoo point bi ñuy xamal ñaari galaat du simple yu am diggante dakaar ak Joal dakaar fee si Adrien Senghor ki nga xam ne mooy Saliou Diouf moo fa teg 1 million suñu jógee nag euh, Adrien Senghor si dimanche bi tamit dañuy dem fee xam ne mooy Joal Yaxya Diop moo fa teg euh, mise 3 millions boole koog benn forum boo xam ne day wax lépp lu euh, wax si wàllu lu simple. waaw loolu am na solo Saliou Diouf defe naa ne amateur lutte simple ci la bokk defe naa ne moo comme li may wax la rek euh, loolu mooy delloo mbaat su ci ndaale parce que tamit ku yokkul yaa wàññi kon ñoom nekk amateur bay teg ay mis lu am solo la ñu leen di ñaanal seen misu 1 million boobu dimanche Adrien yàlla nañ ci génn ak jàmm yax ya tamit comme li ñu waxoon la rek moom maanaam ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi ndax yaakaar naa ne ci làmb lu def na ko ci ci wàllu bëri lu ne def na ko ko ci kon defe naa tey bu demee ba bàyyi nekk yore Faata production organiser lit simple teg 3 millions ci Joal ñu ne dit na waaye mu boole ci forum buy wax ci lit simple defe naa ne kon loola ah wàcc na ku ko ca fekk doo ko yedd kon daal lam ca jublu ak lam ca nar yëpp yàlla na yàlla def mu nekk ndam te bu nekkee ndam nekk ndamul làmb parce que yaakaar naa lu yokkute la rek di ci nuyu nag waa yëpp tamit amin Babacar nag si kàddu yoon leen di tàggoo di leen jox dig daje lundi incha allah mais balaa boobu mooy nuyu sama yaay Mère Sow nuyu sama doom moo Mohamed Diouf nuyu Astane de chéri Khadija Diallo depuis Parcelles nii di nuyu samay doom Mame Diarra Penda Fallou musa ak Rokhaya di nuyu di nuyu ki nga xam ne mooy mbay Seye depuis West Foire di nuyu euh, Abou Gueye euh, depuis États-Unis doomu ndey Cité di nuyu Khoudia. Seck ak borom këram gi nga xam ne mooy A Seck depuis Italie di nuyu aussi sunu garde ko sunu xarit sunu lakkale Iba naan ko happy birthday tey la anniversaire mais anniversaire bi dafa géey amul gâteau amul añ amul dara. Babacar mais añ jotagul añ bi dina ñëw Iba ñu koy wax rek 29 novembre bi happy birthday to you yàlla na yàlla def balaay quelque temps yàlla may ko soxna su baax parce que moom tamit xam nga góor yàlla la borom mbaax la te borom xol bu nice la te yàlla moom xol yi rek la ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ibaa moom loolu am na ko nuyu laay bu faas tamit maa ngi koy nuyu Serigne Ndeye Fatou borom Ndukumaan Jeng laay maa ngi koy nuyu bu baax a baax ca Colobane di nuyu ku mel ni Badara Badara bu xarañ wala ma ne sax Badara bu groupe baax di ko nuyu di nuyu ay soxna yëpp Xadi ak ki nga xam ne mooy Mami Ndiaye di nuyu ñoom Xaadim Xaadim Balla Gaye maa ngi koy nuyu di nuyu Massamba Dieye képp ku nga xam ne daal yaa ngi groupe baax tey maa ngi lay nuyu mais tamit di defal mention spéciale Saliou Khoule meilleur animateur ba nekk ca Zik FM maa ngi koy bu baax a baax. ba xet bu bees. waaw non kooku moo ma safoo ma faale ko ndey yow mii daf may lamba lambee ci rajo ba ñëpp di ma dégg kon Saliou Khoule mention spéciale yal na yàlla guddal sa fan wéral say cër barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam. sa médecin yàgg maar. waaw sa non yàgg maar moom ma yàgg maar moom yàgg maar sama rakk la sama rakku deret la. ndax am na ko wax circonstance boo am ne boo ca tolloo ku nangoo làng ak yow nangu laa téye jàppal ne kooku moo gën ci yow ndax nit ki bi ngay nekk di man di defal sa bopp munu pour nga xam ki la bëgg day jafe mais boo nekkee ci circonstances yu jaxe yu metti fa ngay xamee nag ràññee ñi la bëgg ñi lay jey ak nangam sangam kon yàgg moom yaakaar naa ne sama rakki xol la yal na yàlla guddal fanam may ko soxna su baax barke yonent bi di nuyu yaayam bu baax a baax mi di nuyu képp ku ñu suivre à travers le monde ngañ sow nuyu waat naa la di nuyu ñëpp nday Kumba Fall Aïssa madame ñaa Aïssa kat dinaa ko nuyu waaye xam nga moom fii mu ne nii mooy loolu yal na ko yàlla may jàmm rek Aïssa Darago maa ngi lay béggee ba lundi incha allah.